tay nak biñuy ñëw indiale nañ lu tollok 74 millions 250 mille francs yo xamné ne ñi ngi ko euh, sédelé comme niñ ko tambalé di def bi programme bi commencé ba légui manam am patch bo xamné dañ koy jagleel li ñuy woowee mutuelle isolée am benen patch bo xamné dañ koy jagleel acteur de l'économie sociale et solidaire sous forme de subvention dans nag région de Louga nous sommes dans le département de Linger, bi nga xam zone agro-sylvopastorale bi ñu aussi une une mutuelle isolée mutuelle des éleveurs du Sénégal Nous mutuel mutuelle yu option au niveau du ministère di les accompagner à travers la mise à disposition de ressources financières moy dañu gis né lu ci ëpp mutuelle isolé yi dafa jóge ci xalaat ak jëf population yi nga xamné ñoy dëkk ci gox ba bo sétlo tay fi ci mutuelle bi daanaka ñi fi ñëw yëpp di wut ci koppar yoo xam ne da leen di dimbale taxawu leen ngir seen koom gëna jëm kanam ci zone bi lañu dëkk kon bépp jàppale boo yëkkati def ci rek da nga koy delloowaat askan bi. madame le ministre moo ñëw tey avec un montant de 40 millions pour nous épauler donc euh, dañuy wax rek mooy que ne lii nga xam ne ko éleveurs yi danañ gën comprendre que nous ñoom am nañ possibilité gis nga tey ji fekkoon na bépp éleveur dafa épargne fii rek de de vingt francs rek ça va ça va faire des millions puisque am nañ ko am nañ ko mais le fait que ñu ñu conscient c'est li nga xam ne war nañ ko def ndax comprendre uñ que ne dañ ne mutuelle d'épargne mutuelle d'épargne et de crédit kenn waxul mutuelle de crédit et d'épargne donc pour nga pour nga pour nga leb il faut d'abord nga épargner il faut que d'abord éleveurs yi am culture d'épargne puisque toujours ñen dégg ay éleveurs yo xamné ne dañ leen a dañ leena a dañ leen a wala yoy fekk dañ fekk ci ñom ay xaalis ay des millions des centaines de millions wala yu demee noonu culture bobu la wara war wara dindi

façon boo xam ne kenn ku ne ci mutuelle yi liggéey bi ngay def dina gën a moderne dina gën a aussi taxaw pour dimbalé askan bi yoy yëpp mu nekk ay xalaat yu rafet yoo ñun li waron waroon bi ñu ba fi moy aussi rassurer mutuel isolé mais surtout rassurer acteur microfinance rassurer acteur de l'économie sociale et solidaire que né état bi dina taxaw seen wét gën euh, taxaw ci euh, anam ak jumtuwaay yi nga xamné war na bokk ci li jëmale liggéeyu kenn ku nekk kanam